bismillahi rahmani rahim sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa sallama taslima eh, eh, bi yawmil arba'i eh assalamu alaykum eh ni tambali nak ci at mi 2023 bi nak ci akhbar isra'il gi mbot yi nga xamanteni bi tedd ki daf ko dajale nak ci filkul jawahir fi akhbar isra'il ba tax mu nek diwan nekk majmua nekk recueil li ni ci njëkk a génn tey nag ci at mii di deux mille vingt trois bi mooy dee ci boppam ndax mooy dëgg xalaqal mawta wal hayaat yàlla dee lañ njëkk a bind di fàttali sunu bopp di fàttali ñëpp ne day bette ñu koy bàyyi xel ak ci luñ mën a nekk kenn ku nekk la nga yëngu ci àdduna ci sa mode de vie day ko bàyyi xel moo tax nag rawante nag nag ndaw ñi nga xamni bi ngay nekk ndaw nag la yàlla gën a soxla sa jaamu jaamu yàlla ndaw la yàlla gën a soxla mais dafa nekk koo xam ne ku tedd ki dafa wax ni bi ko suñu borom suñu borom bi ngay adama ba noppi la bind dee <coughs> bi mbindee suñu maam adama ba noppi ci la bind dee waaye bi mu ko bindee daf ko bind ci melokaan woo xamante ni bi benn malaaka ñimew ko waaw benn malaaka ñimew ko bi ma koy présenté jibril diko ko malaka yi malaka yi biñu ko gisee ñom ñepp xam mi la jooni at lañu ñu xam soog a ko ngir ñàngug dee ba nak mu nekk ko xamanteni bi asman ak suuf bo leen leen dee mo leen ëpp nga xam ni kon bu fekkon yi mi xey di ray ci ay nit bu fekkon teen da nit ñi dañu doon ay picci yu ñuy kut yu dee kut comme mo ëpp asman ak suuf ab loxom fekke ci loxo lay rey wala day kut kon ben loxo bi ben loxo bi rek ben loxo bi kon man na kuttandoo ñepp ba na reyandoo ñepp ci ben seconde waye amul ci nit ki soxla roh gi lay waxal roh gi muy wara yob roh gi lay waxal daf koy daf bu ñewé day présenté ko bu ko né roh gi ne ko yow yaa kan daf ni ko man may dé man may ki nga xamanteni bi fiñ tollu ni ma lay say mbokk may ki taggalé nday ak doom di tàggale jëkkër ak jabar di tàggale xarit ak xarit diggante bu nekk daal maa leen di tàggale maay ki nga xamante ni bi damaa ñëw tey ngir yóbbu la dafa am feneen fu mu lay yóbbu nga doon dunde maanaam dee ruux la waxal moo tax nag may fàttali sama bopp di ko fàttali ñëpp rawante naa ndaw ñi ak bette gi muy bette waaw fu ne lay rey nit na rey ci sa nekk rey la ci sa saal rey la ci mbedd mi na rey ci salle de bain maanaam fu fu fu mu war a jëlee ruu gi rek ak foo mën a nekk mu jël ko gis ngeen ñii di dee ci accident ci oto yi ñii di dee ci moto ñii di dee ci ndox mi géej gi ñii di dee ci avion fu nekk ñii di dee ci hôpitaux yi crise cardiaque et cetera waaw te ñi bëgg nag dem tàmbali nañ ko tey ñetti fan yu nekk dinañ génne dara ci silk bi incha allah mm-hmm. tey moo tax nu njëkkee dee bëgg nag ñun ñëpp ñu xam ni nag lu na seen moo mawti ñu koy fàttaliku looloo tax ñu génne ko tey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.